jëf euh, sëriñ maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi nuyu say auditeurs yi lay euh, euh, seetaan yëpp ni nga ko waxee nag tey day bis boo xam ni bisub yoonu murid yëpp la waaye bisu bisub Daaru Xudoos yëpp it la ndax sëriñ Touba Xaadim Rasool bis bi dafa bonkoon ci bis yim dénkoon Cheikh Mouhamadou Moustapha xamal ko ni ko bu ma duggee intikaaf maanaam su ma dëkkalee su ma dëkkee ak sama borom euh, nang ma yóbbu Touba ca bu xaddam loola Cheikh Mouhamadou Moustapha moom mi nga xam ni bi muy dem moom la dénkoon yoon wi ca baax ga ak njàmbaar ga ak xel mu rafet ma fexe ba def ko lu jamono doon xat xat xat ak lu tànk-tànk yi doon bare bari mu fexe ba def ko euh, na ko Sëriñ Touba bëgge woon euh, loolu moo waral Cheikh Mouhamadou Moustapha bis bii moo ko njëkk a woote euh, woote ko ngir euh, sant euh, ndigal li mu jëfee muy ndigalu sëriñ Touba dénkaan ya bari na lool waaye comme bis bi ca tey ci bis bi lañuy wax moo tax ñu ñu ñu ñu ñu tënk ko ci bis bi rek sant googu moo tax sëñ Modou Moustapha sàkk woon fu mu muri nekk bis bi nga ñëw Touba ànd ak moom màggal ko waxut nag. na kenn màggale fenn ruu yi la soxla woon Touba Cheikh Mouhamadou Moustapha xamaloon nañu ni déggoo na ak boromam képp koo xam ni fanaan nga ci bis bii mooy bis bi nga xamante ni Serigne Touba ci la ñibbisee Touba nga xamante ni dëkk bi mooy dëkk bi mu gënoon a bëgg ci xolam bis bi ko Cheikh Mouhamadou Moustapha indee bis boobu la sëriñ Touba ne woon moo gënoon ci ay bisam ba Cheikh Moussa di ko junj ca way wa naan ko euh, demal euh, demal ca kaw sarak jina mën a ba ba mu Moussa di ko di ca way wa euh, naan ko jëlal sa boŋ ca dem diggante kaw sarak jinaan nottil ca lekk ca naan Cheikh Moussa Ka di ko way way woowu mooy bisu tay bii Cheikh Mouhamadou Moustapha nag nee na képp ku fi fanaan mel nga ni kuy door a judd ci ñàkk bàkkaar ndax murit ñun loola lañ soxla ci ci bu ñu dem màkk sax ngir suñu borom effacer ñu suñuy bàkkaar kon du bis boo xamante ne ni dañ naan na ko ñii defe fii na ko ñee defe faa Cheikh Mouhamadou Moustapha dani ruu yi laa soxla Touba su ngeen ñëwee ñu màggale nii màggal gi nag mooy jàng xasida niñ ko defee jàng alxuraanu karim salaatu ala nabi sikkar bernde ca loola lañ nekk ba ba suba ba léegi ca it loolu la ñuy àggalee guddi gi kon li ñuy def rek mooy ñaan ci barkeb Cheikh Mouhamadul Moustapha barkeb Serigne Touba mi nga xamante ne ni bis bi amul bis bu ko gën a rëy ci yoon murit lépp lu ñu ci Cheikh Mouhamadul Moustapha dig nañu dajeeg loolu ci barkeb Serigne Touba. ñun euh, Daara Khoudoss Cheikh Mouhamadul Moustapha moo moo moo moo boole sëriñ Serigne Touba moo boole Cheikh Mouhamadul Moustapha ak maam suñ sunu maam Cheikh jàll ndax xam nga ni yoon wi lu ne am na fi waaye soppi tur yombut te Serigne Touba. soppi na turu mm, euh, sëriñ Mor Seck tudde ko rijaalullaahi kaa ñu waxtaane sëriñ Touba itam yombut ndax euh, sëñ Abdoulaye mu baax ma kat waxoon na ne bare nañuy kii waaye iyaaka nax bu sëñ Touba wa iyaaka na saxin rek lañ mën a am ci moom koo xamante ne sëriñ Touba nee na la may naa la bis yu ay bis ba bis ba del ci euh, nga may laaj may tontu ku yàlla bu ñu ñetteel nga xam ne ndox mi seexul xadim daan jàppe sax maam rijaal ko loolu yombut ci biir loolu nag la la la la sëriñ Touba digoo la loon muy lettre boobu nga xam ne mi ngi ci kër gi digaloon ko mu wutaloon ko 28 ya lu mel ne 28 gàtt yi ak toni ceeb ya ak ak diw ya yooyu yëpp xamaloon ko ni ko bis boo demee ba fekk gis gis ma jafe la boo gisee ku mel ne Cheikh Mahamadou Moustapha mën nga ko mën nga ko jox bi Serigne Ridial maam Ridial demee di lijjanti ji addi yi jooju bi mu daataan ñëw la la Seexul Xaddim dëkkaale ak borom ci la ko sëñ Moustapha indi fii loola mooy joxoñ bi ñu andi Daaru Xuddoos boo gisee nag comme li nga ko laaje léegi lu mel ni doxin wi wuuteeg doxin yu bari lii fii di yëngu du nuru ay ndënd dañu mën a wax ni bokk na sax ci li tabax jumaay Touba loolu nag suñ ko waxee euh, maanaam euh, dafa jar tuuti saraa rek ndax xam ngeen ni fii ci kër sëñ Daam ata foofu la membre Rijaal euh, foofu la cadre Rijaal nekkoon bi Cheikh Mouhamadou Moustapha fondement jumaa ji membre Rijaal foofu la daan nekk di soññee Cheikh Mamadou Moustapha nekk bayti bu mosaan jóg di di di di di ñëw ci liggéey bi ci jumaa ji di ko taxawu cadre jaal googu lay jaar fi maam du jaal booba ndënd yii lañ daan yor yii nga gis ñuy tëgg demoon siyaare ji Cheikh Mouhamed euh, sëñ Moustapha Mohamed ndënd yooyu lañ daan yor buñ daan moo daan yee góor yàlla yi daan liggéey si jumaa ji buñ masaan war a gaase lu mel ni beton euh, ndënd yee leen daan euh, soñu buñ masaan de war a dem ndokk ndënd yi moo dem ndokk moo moo daan góor yàlla yi Euh, kon boo déggee ma waxee foofu laa waxee ceel bu loolu ma lay wax booba njabootu Serigne Touba gépp a ngi fi li tàmbalee ci sëñ Mouhamadou Moustapha Serigne Fallou ba ci sëñ Mourtala Thiam mi euh, kon day loo xamante ni lu fi yàgg la muy ndënd yi ca ca Taïf la ak Serigne Touba euh, ba pare itam fii ci Touba li ma la mën a jox loo xamante ni doomi Serigne Touba yëpp fekke nañ ko maanaam ca booba masaaxa yi dox digganteem ak Serigne Touba maanaam daanaka matut téeméeri mètre manqué na ko manqué na téeméeri mètre kon loola lu fi yàgg la. Euh, ni nga ko waxee nag bi ñu saa bu ñu xëyee siyaar bi ñu defoon day siyaare cosaan day siyaar boo xamante ne nii maanaam sunuy maam ñoo ko daan def bi mu fi jógee sunu waajur di ko def muy sëriñ Amdi Seck Ridial bi mu fi jógee ñu ànd Seex Ridial Seck mi gëm Bàmba ak njaboot gi yëpp di ko def day loo xamante yëfi cosaan la gëm nañ ni tam jéegooy dem yéeg jikki yi ñu ci doon def mooy sunu jéggi siraat ndax siraat day loo xamante ni nit ki xalaa kulli àlin da ko jéggi loo xamante ne nii borom xam yi wax nañ ni dafa sewe lañ set rataxe ne mën a baj bajee ni jaan ca faw euh, dañ koy gàcc ci safara nga jéggi ko euh, sunu sëriñ xamal nañu ni bis bi ku ci fanaan ak jéego yooyu ñu doon dox da ngay xool gis siraat ci sa kanam gees seen ko ci sa ginnaaw maanaam ci xefe xippi ci nga koy jéggi kon lépp lu ñu sëriñ bi dikk ci bis bi ñu ngi gëm ni ñu ngi yaakaar ni itam euh, dinañ ci daje ak moom. xam nga sëñ Muntaxa mi nga xamante ni moo fi sëriñ Touba yàlla na fi yàgg lool ca wér sëriñ Muntaxa dafa joxe. exemple ndax bi eh, yëf yi xewee metti woon na lool ci ñun waa Touba ndax coow li bari woon na fi waaye sëñ Muntaxa jox eh, jël eh, alalam defe ba pare soññee ba pare itam jël casque yi masque yi di ko takk xam nga loolu exemple la kon loolu mooy wane ni yëf yi lu am la kon ni ko sëriñ bi waxee rek nim ñu ko soññee loolu la ñuy soññ ñëpp di soññ suñu bopp maanaam mesure de barrière yi nga xamante ne ni suñu docteur yi Euh, nga xam ñoom la suñu borom jagleel lu mel noonu digal nañu ko ca sëriñ si digal taalibe yëpp ñu tënku ci ñoom ca loolu la ñuy tënku ci la ñuy digal itam mboolem ñu àndal ñëpp ñu tënku ci loolu mooy euh, ni ko sëriñ bi waxee rek euh, mesures de barrières yi lu mel ne masque yi ak itam sel yeeg yooyu yëpp ndax sëriñ bi bu ñuy wax loolu dafa bëgg rek ñu mucc voilà loolu rek moo tax mu wax ko loolu moom ñu ngi ci fas yéene tënku di ci digal mboolem nag ku aju ci ñun ni ko sëriñ bi waxee ñu defe ko noonu voilà li ñuy def mooy sant rek ak soññee mbo ñu ngi sant mboolem rijaal yi nga xamante ni ñoo aju ci kër gi ci turu Seex Rijaal Sekk Gëm Bamba ci mboolem ndigal yi jàll yi nga xamante dafa jógee ci Serigne Touba wadd ci kër gi taxawaay yu am solo yi ñu ci taxaw di soññ itam mboolem rijaal yi ci mboolem li ci kanam xam ni rijaal mbirum rijaal du lu ñuy jaar sàkk da ngay liggéey rek ba am sañ-sañ ba ndax turu rijaal euh, euh, tëdd di maye tëdd di nelaw ma yewu kon loolu la ñuy suñu bopp. di soññ mboolem rijaal yi di wax ni itam nañu xool rek forme bi dara bañ cee sensé ni yëf yi jóge woon ci Serigne Touba waaye taar beeg kàttan bi lépp lu ñu mën ci yokk ko nañu maase ànd fexe ba taar beeg kàttan bi yokk waaye forme bi moom nañ fexe ba dara dara dara du ci sensé na ko Serigne Touba doon dundee ak maam rijaal suñuy waajur di ko ju dund ba mu agsi ci ñun loolu lañ fas yéene dunde lépp kon ñu ngi woo ñëpp ci ci ci ci bis bi di wax ni itam Cheikh Mouhamadou Moustapha xamal nañu ni képp koo xam ni fanaan nga fi. mel nga ni kuy door a juddu ci ñàkk bakkaar liir buy door a juddu ci ñàkk bàkkaar ci yaakaar naa jullit bu ne loolu ngay wuti màkk kon bis bi bonus la si ñun ñu ngi ciy woo ñëpp di itam di saaku itam ñu màggal ko ci ak sell noonu ko Cheikh Mouhamadou Moustapha digle ñu defe ko noonu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf